asalaamaaleykum wa rahmatullah taxala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiru di ko siyaar di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di nuyu sama waajur sëriñ Mustapha sëriñ Masamba di ko siyaar bu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér Mbàkke di nuyu kilifa diine yépp yi ci réew mi yépp di leen siyaar bu baax bi ñaan yàlla def ci réew mi jàmm ñuy sant sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiru taxawaayam ci réew mi taxawaayam ci diine ji rafet na lool ndax kenn ku nekk xam nga ni fan yu néew yi jàll jamonoy élection yi tension yépp yéegoon na taxawaay bi ci sëriñ Mountakha mbake moom sëriñ Bassirou taxawee ñëpp teg nañ ci seen bët delloo siwaat nañ nit ñi delloo na jullit yi delloo siwaat taalibe ba ñëpp dal kon moom Mbacké nañ ko xame woon ban fàttali ko ba léegi rek mi ngi ci toogaay fi toogaay fi jataayub sëriñ Touba taxut mu def ko noonu lañ ko mas a xamee moom sëriñ xa Mbacké moom sëriñ Bassirou takk la gi rek di liggéeyal lislaam di liggéeyal li Allah ak yonent bi Serigne Touba si leen ko masa xam ba jataayu Serigne Touba bi fekk ko fi kon ñu ngi koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te wér ñuy sant Cheikh Mouhamadou Rafail Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Fadel di ko gërëm di ko ñaanal ndax képp ku di julli rek yoreel nga ko sant ak ngërëm ak ñaan ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér Mbàkke bu ko neexoon du taxaw di xeexal lislaam bu ko neexoon du taxaw di xeexal yonent bi sallam ak maamam ju baax ja Sëriñ Tuubaa waaye dañoo gis ni benn fàttali ko ba léegi moom roram mooy xeexal lislaam teewal yonent bi sallam teewal maamam ju baax ja Sëriñ Tuubaa ak fépp fu mu mën di teg tànkam ak fépp fu mu mën di yëkkati kàddoom dundam képp lool la ko lan gis ci moom kon yal na ko yàlla sàmm aar ko defal ko gudd fan ko ànd ak wérgi yaram mbàkke ba li ñu bëgg ci diine lislam lépp ñu mën koo am jërëjëf cheikh Mouhamadou Rafahi Mbacke moom cheikh Mouhamadou Fadel Mbacke sant nañ la gërëm nan la ak ñemel ni yow ñu ñëwaat ndax lislaam dafa wéet soññantewaat bu baax a baax ñi jàpp ci buumug lislaam gi wéet nañ ci lool wéet nañ ci lool ñi ba jàpp ci buumug Sénégal geet wéet nañ ci lool lislaam jooy na weetaay Sénégal jooy na weetaay ndax lan ngir alal lislam jooy na wéetaay ngir alal Sénégal jooy na wéetaay ngir alal immigré yi suñu doomi réew yi nekk ci àll bi bàyyi seeni waajur bàyyi seen ndey bàyyi seen baay bàyyi seenu njaboot ak tukki na mu mettee wane ginnaaw ñu tudde leen ay immigré ñu nekk ci àll bi di sonn di tumuranke di wut luñ yóbbante seenu njaboot xamuñu ñun ñun bàyyi ginnaaw ndax ñi ngi koy am wala amuñu ko ñoom nun mën a def wuñ waree yónnee rek danan yónnee xamuñu lu ñuy dund foofa may dajeeg ñoom ci àll bi ñuy dund lu metti te duñ ko wax seeni waajur duñ ko wax seeni doom duñ ko wax seen soxna kenn du ko xam muy kasa ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi immigré yu góor yi ak ñu jigéen ñi kenn ku si nekk yaa dund loo xam ne ni doo ko wax kenn muy métit ak naqar yoo xam ne nii ñanu dem ci seeni réew ñu ngi leen koy teg di leen xañ ay kayit di leen xañ ay droit di leen tumurankeel di leen dàq di leen dóor di leen rey di leen fetal hmm? loolu lépp sunu doomi réew yi di ko dund muy métit yoo xam ne nii mënu suta wax fan la mën a yem Espagne rey nañ fa ab sénégalais Italie rey nañ fa ab sénégalais kon ñun bu suñu doomu réew defee benn dégât ñu sukkandiku ci ba ministre de l'intérieur bi nekk Italie sukkandiku ci ni day xañ suñu doomi réew droit yanu am foofa kon jot na pour ñun ñu jot ñu jog taxaw seetluwaat sunu bopp ñun te xam ni nag ñun suñu njiit yi dañoo wara defaraat seenu toogin te ñu gëm sunu bopp nag te xam ni dan ni jot nañ sunu indépendance mais dafa mel ni man su may xool ñun ba léegi ñun dañ ñoo yeew ba léegi ñun bu may xool dafa mel ni ba léegi dañ ñoo takk buum lan moo tax Sénégal gii ñu jot nañ sunu indépendance italien yi français yi espagnol yi nu leen neexee lañ fiy dugg te duñ fi am benn problème sénégalais yi buñ génnee Italie Espagne France dañ leen di bunduxataal di leen teg ay naqar di leen xañ seeni droit këyit yan fa soxla sax pour ñu am ko day jafe pourtant sunu maam yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ay buur doon ay cedd ñu di leen tudd ay cedd ñoom doon daan bañ loolu ñoom mosuñoo nungu tubaab bi not leen ñun ñu nungu léegi tubaab bi di ñu not di gën di ñu not ba kañ sunu suufu Sénégal yépp tubaab bi jënd nañ ko te pourtant ay boole mi milliards ay sénégalais yu yor ay milliards ñi ngi fii ci Sénégal man koo jënd loolu mooy lan tubaab bi daa gëm boppam alalam du ko rënk ci ay banque du ko rënk ci ay ay coffre da koy def ci suuf liggéey ko mu jural ko ay milliards seen milliards yi ngeen rënk da ngeen see war a ubbi jënd ay suuf ubbi si ay entreprise dimbali seen doomi réew yi ndax sonn nañ xale yaa ngi dem ci gaal yi naar yi di leen rey man sama tournée daaw bi ma tournée ba ñëw Mali fekk naa fa ay xale yoo xam ne nii libi lañ dëppe ñëw Mali ci kër sëñ Tuubaa bi bi nu ñëwee une semaine lan fa def waa kër sëñ Tuubaa ni leen da ngeen di génn dañu di ay murit doon ay jullit doonte ne duñu ay murit sax ay jullit lan ak sëriñ Tuubaa ni mu mel ci réew mi ni mu mel ci àdduna bi kër gu nu tudde sëriñ Tuubaa ab julit war na faa wàcc ñu ne la boo fi defee une semaine da ngay génn xale boo xam ne dafa bàyyi ndeyam bàyyi baayam yaayam ak baayam jël jaay seen matériel yépp jox ko ngir mu tukki ndax ñu gëm ni senegal liggéey amu fi ñu meraas seen bopp jox ko ne ko demal tukki mu dem lam bëggoon amu ko mu dëpp ñëw di sarlu ci kër Sëñ Tuubaa gi ñu ne ko comme am nga fi une semaine dangay génn wala ñu génn la ci biti xale yooyu biñ ma gisee yàlla dogal ñu am yaakaar ci man yéeg fekk ma ci kaw wax ma ko ma ni leen toog leen dinaa wax ak ki fi nekk yàlla dogal ma wax ak ki fi nekk xamal ko ni ñii de dama bëggoon nga may ma ñu toog fi ba ba may dem dinaa leen yóbbu ndax daal sama xol ak yaay gi ma doon yaay ak jullit gi ma doon jullit ñu nekk ay jullit ñun tey ñu war fu man di nekk ci àdduna bi ñu war faa teewal sëriñ Touba mënuma leen a bàyyi ñuy delluwaat ci gaal yi ndax ñu bari dee na ci yoon wi ma bëgg nga bàyyi leen fii ci kër gi lépp loon soxla dinaa leen koy jox bu may dem bu soobee yàlla dinaa leen yóbbaale mu ma baax na soxna si may nan la ko ba sama dem jotee dama leen a daggal billet jox leen seen argent de poche ñu jiitu ma ma doog a jël avion ñibbisi loolu doon lu metti doon lu naqari te ñoom li ñuy dund nag seen waajur yi duñ ko xam ñu tuuti ñu néew le ci seen waajur yi di xam dañ leen di dóor nangu seen alal duma leen ci yoon ba seen yaram wi yàqu am na ci koo xam ne nii dafa feebar ba man maa ko jël maa waa kër Serigne Touba googu yóbbu ko hôpital mu doon jëf joo xam ne ju yéeme la ju ñaaw la milliardaires yi nga xam ne nii ñi ngi ci suñu réew mi te ñoo dimbalante ci suñu biir dimbali suñu doomi réew dimbali lislaam milliards yi ngeen jël rënk ko ngir yàlla jël leen ko ngeen jënd ci suufu Sénégal yi ubbi si ay entreprise fulla ji nasaraan yi am ak xel min am am ngeen ko ngeen jël seeni milliards ngeen financé ko ci seen doomi réew moo gën ñuy dem di dee ci àll bi loolu liggéeyal lislaam la xale yi sonn nan immigré yi sonn nan xale yi sonn nañ immigré yu sonn nañ ñun nag lii ñuy wax dañ teg suñu bët dund ko ak ñoom moo tax ñu di ko wax mu metti lool si ñun kër sëñ Tuubaa tamit bu demee ba jullit bu fa dugg dañ koy àppal ni ko boo fi amee une semaine da ngay génn kon kër ga dañ koo tudde sëñ Tuubaa waaye la sëñ Tuubaa doon doxinu sëñ Tuubaa nekku fa te jamono yi nga xam ne nii kër sëñ Touba yi ñi ngi ci doon dégg sëriñ Mamor Mbàkke moom sëriñ Mortada de jàmm dong nga fadoon am ak xéewal ak ñu dalal julit yàlla yi si jàmm mosuñu faa dégg benn coow moom sëriñ Mamor Mbàkke moom sëriñ Mortada yàlla yàlla defal ko gudd fan ko ànd ak ndax si jàmm lay dox taxawaayu waajuram ju baax ji rek la fi taxawee waaye bi nga xamee ni dañ fee commencé di dégg porte parole Cheikh Bassirou Mbacké moom seex Abdou Khadir la kër yi commencé am coow commencé am ak siisante commencé am ak ignoré goo xam ne nii xamuñu fan la jógee te loolu bokkut ci Serigne Touba ñu ne képp kuy éventrier jaar fi juróom-ñetti fan nga fiy am sëriñu ndaw ya fiy jaar quinze jours nga fay am loolu pour lan la Serigne Touba lool la leen sant ku ñëw sama kër gi boo fi amee 15 jours da ngay génn. suñ Tuubaa loolu la leen sant taalibe bu fi jaar boo fi amee juróom-ñetti fan dangay ngay génn loolu man dund naa ko Mali man soxna Xadi Mbàkke moom Serigne Moustapha moom Serigne Massamba dund naa ko Mali mu metti lool naqari lool ndax génne ak boddi ak sànni dafa bokkut ci yoonu murit bokkut ci diine lislaam tamit kon sunu kilifa yi ñi nga xam ne nii ñoo fi nekkal diine lislaam dañoo war a seetaat seen bopp sunu kilifa aada yi tamit dañoo war a seetaat seen bopp président Macky Sall sénégalais yi sas nan la bul jàpp ni mukk yaa fal sa bopp sénégalais yi ñoo la fal yi ñoo fal kon sas nan la sas wu rëy na nga defaraat saw toogin te nga liggéey ndax sénégalais yi dañ laa sas sas nañ la sas wu rëy sa doomi réew yi nga xam ne nii ñi ngi bitim réew di tumuranke ñu di leen di xañ say seeni droit war nga cee wax sa doomi réew yi doon ay xale yu ndaw bàyyi seeni waajur di génn ci àll bi di dee ci géej gi war nga cee wax boo defaroon ay entreprise jël leen ñuy liggéey journée mille wala journée 5000 ba lu ko ëpp xale bu ko am da nga mën a toog sam réew ñun nag dañuy dox di def ay tournée xam le xew ci àdduna bi doon sénégalais doon ab julit fa seenee dox doxinu jullit fa seenee xeexal lislaam te président Macky Sall ñun ñi la ñun ci lañ bokk ñi la ñun ñi ci lañ bokk Sénégal suñ demee bay tànn président ci ab tarixa suñ demee bay tànn président ci aada suñ demee bay tànn président ci mbokk kon gëmatunu sunu bopp waaye de li ma leen di xamal mooy fii ku fi bëggatee tànn président ci tariixa danga xam ni xam-xam am na ku fi bëggatee taxaw di tànn président wala ngay fal président ci tarixa danga xam ne xam-xam am na te yàlla maye na ñoo xam ne nii ñi ngi toog seen roq di def la ñuy def te duñ ci boole ay wax te séentuwuñ ci ay milliards wala ay millions président Macky Sall xippil say bët nga xool te milliards yi ngay roñ di ko yóbbu di ko joxe nga ubbi ko ay par entreprise doomi sénégalais yi liggéey ci ñu bàyyi gaal yi ñuy dem di faatu ci ndox mi loolu lan lay conseil ñi ngi ñaanal yàlla julli di faatu yàlla yërëm leen te yàlla def ci réew mi jàmm yàlla def ci diine lislam jàmm jërë ngeen jëf